maanaam li li Alburi daan wax naan sama maam bu ko kenn mësaana tooñ day bàyyi bañ mat fukk ma boole leen duma waxi sonko ji dama yaakaar ne maa ah, dégg ngeen déglu sonko bi yéen laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina allah ji sëriñ Mouhamadou Lamine Seydina Ousmane Sonko Sonkoy jomaay jomaay jomaay Sonko mani ku mës a ku mës a tooñ maami Alburi Alburi nee na maam day boole bañ ma fukk ma boole leen duma ndekete maamam taxutoon muy wax de wa Sonko moom wax ji ndekete loolu maa yaakaar bi ñu koy Sonko tax discours Sonko bi déglu ngeen koo xam du tiit du du du buqi buqi dara mënu ko nee na lépp luñ ko mës a teg ci daram bii ciy tooñ jéggale na waaye nag li nga xam ne réew mépp ko bokk moom ah non koy teg ci taaba ji loolu moom dañ koy waxtaane moom li nga ne am naa ci cër kii am ci 300 kii am ci fanweer kenn boole lépp ko tuŋaañ yóbbu ko tabax ci ay satadoo di ci yor ay ran si niveau modèle ak takki soxna ak di kiij kiij yi di yor ay jag privé ak ay lu ne ah Sonko nee ci taaba ji de gars maa ngi leen woo ci njëkk teel leen a gis Sonko ni ko xaalis bi ñu jëloon na ngi nii amuti caaxaan ab soose bu lëkkaloo kub séeréer la séeréer amuti caaxaan soose amuti caaxaan wax naa leen lu wér soose bu lëkkaloo kub séeréer nag dem ba bani jumaay sonko sonkoy jumaay dégg ngeen ko tey mu ni tappiruus bi bu ma ciy jaar gars yi dañuy bokki-bokki waaye kenn mënu ma cee tey jaar la ko jaarloo ci tappiruus bi moo leen génn loo xalis bi xaalis bi nag génn sonko mi pare na pour sénégal jub de yàlla mënu sot dugg sonko de biin lay pele del lu na jot nañ ko ay message ak appel ak nit boo xawee amu tur da ngay moytu yéeg da dara rek dara rek sant nan sant nan sant nan walaay sant nan bu loolu weesoo patriote yi le 22 juin bu ñu tabaskee samedi bi ci njëkk ñëw leen Touba Xayra 2 ñu am na lu ma arrêté le 22 bu ñu tabaskee samedi bi ci njëkk Touba Xayra 2 bis bi may sant suñu Touba dama ci ñaane laale ñi faatu ñëpp boole ci nag patriote yi mooy bis bi tous les patriotes nous les invités euh, pour moi c'est toi français daal dégguma ko waaye invité naa ñëpp Bamba Niass dana ñëw ñeneen ak ñeneen dana